Tamba Danfakha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Awa. alors ngay njiitu coalition euh, priorité emploi lépp lu jëm ci wàllum euh, xëy rawatina nag xëyum ndaw ñi ndax gis nañ ni am na programme national euh, bu bees boo xam te ne teg nañ ko fii boo xam te ne dina tax rek ñu mën a investir tamit ci lépp lu jëm ci wàllum mbay mi gouvernement bi nag taxawal ko fi ana nan nga gisee dogal boobu léegi. waa di rafetul rek li nga xam ne moom la nguur gi di taxawal muy vacances yi. waaye di fàttaliku ne rek lii du lu bees Sénégal depuis bi ñuy moomee suñu bopp 1960 ba léegi dafa daana am ay activités ci biir vacances yi ngir ñu euh, bàyyi bañ a bàyyi ndaw yi ñu toog du ñu def dara donc loolu mooy li nga xam ne moom yàgg nañu ko def te vacances citoyennes euh, ci nguuru Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade la commencé ak le ministre Modou Diagne Fada même ci nguuru président Macky ku mel ni Benoît Sambou nekkoon ministre de la jeunesse et de l'emploi à l'époque def nañu lu mel ni maanaam des vacances agricoles di yónni ay ndaw ci ferme anida yi ak yeneen ferme yi nga xam ne amoon na ci jamono boobu ngir ñu tàggat leen alors dama bëgg wax ni rek lii nga xam ne moom la ñu wax vacances agricoles du ci mbiru liggéey xëyu xëyu xëyu ndaw yi dañuy bëgg rek eh, fexe ba ndaw yi mun a fexlu euh, génne ci maanaam fi ñu nekkoon bañ a toog ci vacances yi fu ñu dem noonu mun nañu jàngat ci seen bopp mun nañu jàng maanaam gën a xam seen bopp mun nañu gën a xam seen réew mun nañu gën a xam tam ité yi nga xam ne moom moo nekk ci biir benn ferme agricole donc am na intérêt ci loolu mais mënuñu wax ne vacances agricole la ay tontu la pour li nga xam ne moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu am ci say ndaw ndaw yi. mais ndax loolee tamit dina mën a rek régler lii di jafe-jafe wu xëyum ndaw ñi. déedéet mënu ko def du loolu du foofu la ñu koy seet li ñu mën a xaarandi ci eh, vacances agricoles yi rek mooy dina am ñoo xam ne peut-être eh, gis nañ dinañu gis seen bokk ci mbéy et suba mun nañu delloo foofu wala mun nañu am projet ci loolu loolu rek lañu ci mun a seet mais loolu xam nga loolu pour nga natt ko du du yomb hmm. kon mun nañu wax ne lii du lii nga xam ne moom la ñu war a def ngir xëy eh, saafara xëyu xëyu ndaw yi du lii la ñuy def lii beneen beneen programme la mi mooy programme boo xam ne dañuy tàggat ndaw yi bañ leen bàyyi ñu taxawaaloo ci vacances yi loolu rek mooy l' objectif maanaam loom la ñu xaarandi ci vacances agricoles waaye ba mu jàkkaarloowee ak taskatu xibaar yi ñenn ci suñu ay naataango moom jiitu réew mi euh, Bassirou Diomaye Faye nee na mën nañu investir bu baax a baax euh, ci wàllu mbay mi bu fekkee ne rek bëgg nañ tamit ndaw ñi mën a am xëy. waaw xam nga li mosoon naa def benn euh, calcul bi wonee ni su fekkee Sénégal dafay. Euh, produire maanaam su fekkee dañuy bay lépp lu ñu soxla ci lekk Sénégal waruñu dépasser lu tollu cinq cent mille ci emploi te xëy cinq cent mille maanaam juróom téeméer junni doomu aadama mënuñu ko weesu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo war a liggéey ci mbay mi parce que mbay mi pour mu mun a baax il faut comme mu bari machine parce que liggéey boo xam ne liggéey bu jafe la liggéey bu diis la liggéey bu métti la bu ñu buggee nit yi def ko te mu amal njariñ askan bi mu amal njariñ réew mi dañuy obligé di jënd ay machine fexe ba li nga xam ne ñu wàññi liggéey loxo bi ndax maanaam parce que boo xoolee adduna yëpp dëkk yi nga xam ne ñoo gën a bari lee ñi nekk ci eh, mbéy bi dëkk yooyu ñoo gën a ndóol ci adduna donc ça veut dire que quelque part li ñu mën a def rek mooy xool fi ñu jëlee production yi maanaam li ñu béy ba pare bu ñu ko béyee fan lay dem kan moo koy transporter maanaam kan moo koy eh, denc kan moo koy transformer benn usine la ñu koy def loolu laay wax ay chaîne de valeur waaye mënuñu wax ne suñu dugalee xaalis tey ci euh, mbay mi donc mun nañu saafara problème mu euh, mbay parce que mun nañu dem sax ba produire ay ay ay ay ay ay di produire maanaam di am li nga xam ne am nañu ko mooy ceeb mooy euh, gerte wala leneen mun mënuñu am fu ñu koy jaay donc loolu tam beneen problème beneen jafe-jafe lay indi. Mm-hmm. donc là ça dire que nguur yi dañu war bàyyi di xool ay secteurs yi xam ne moom mooy li ñuy wax secteur porteur bu ñuy war a def benn affaire dañuy xool lépp. duñu yem rek ci benn secteur secteur bi yëpp la ñu xool parce que secteur yi dafa dañoo ànd amul secteur boo mun a développer bàyyi leneen tey tey boo buggee par exemple mbéy bi mu mun a développer il faut que ñu dugal internet maanaam xarale yu bees yi il faut que ñu dugal ko mu gën ñëw ci li nga xam ne moom mooy ci eh, béykat yi pour que ñoom ñu mun a sukkandiku ci loolu pour mun a eh, am njariñ ci seen béy donc nekkul loo xam waaye nekkul loo xam ne war nañu mun a wax na tey tey tey boo jël dugalee xaalis ci mbay mi automatiquement xale yëpp mën nañu liggéey parce que am na xale yoo xam ne mënuñu du ñu dem ci mbay mi parce que du seen vocation et puis ñëpp mënuñu ko def parce que ci condition yi xam ne moom lañu ko bëgg a def dafa laaj financement bu bari xaalis bu bari laaj. alors ñu tànn nag lu tolloog ñaar fukk juróom-ñaar ci ay ferme yu ci mel ni ANIDA ONCAV ANPEJ euh, ba ci euh, PRODAC ak yeneen yu ni mel ana nan nga ko jàngate mooy ferme yoo xam ne am na yoo xam ne sax ëpp na ñaari fukkat ba amee ba léegi. Mhm. voilà ñu ngi dox wala doxuñu bu baax. Mhm. mais ferme yooyu am na boo jëlee param PRODAC euh, CFA am na Itato Kédougou am na Kër Momar Sarr am na Kër Samba Kane am na def dañuy am ferme yoo xam ne defar nañu ko ba pare te yooyu ferme la ñu bugg yo lañuy ñuy ndaw yi donc bu ñu demee foofu dañuy fekk place dañuy fekk ndox eh, place boo xam ne mun nañu béy mboq wala leneen wala leneen donc yooyu mooy ferme yoo xam ne am na te nekk na lu rafet tam parce que xale yi dinañu gis nit ñu mun a defaree tey tey mbéy de façon moderne maanaam mu bañ a nekk liggéey boo xam ne liggéey bu métti la boobu bañ leen découragé ci ci affaire mbay bu ñu demee foofu dinañu gis ne eh, xam-xam la sukkandikoo lu bari du doole rek la ñu sukkandikoo pour mun a def liggéey liggéeyu ferme donc loolu am na solo fi ñu dem yëpp ay ferme la yoo xam ne am na ba pare te ñu ngi sax produire am na ferme yoo xam ne ñu ngi sax produire déjà waaw. bu ñu waree def mbay boo xamante ne bu moderne lay doon ana lan lay laaj. dafa laaj xam-xam parce que gis nga eh, soxna Awa li li xew ci àdduna bi. Hmm. du problème du problème mbéy du problème leneen problème xam-xam la laaj xam-xam bi nag boo ko amee mun nga sukkandiku ci loolu pour mun a organiser wu mun nga sukkandiku ci loolu pour xam fi ngay jëlee alal mooy xaalis bi nga xam ne moom ngay dugal li ñu ñàkkloo fayda euh, sunu réew mooy ñun dañuy toog fi rek sunu borom xam-xam yi dañ leen bàyyi ñu dem bitim réew wala bu ñu leen jëlee ci biir euh, gouvernement bi ci liggéey gouvernement bi bu ñu deful politique duñ leen may duñ leen faydal donc xam-xam mooy première chose ñaareel bi mooy xaalis il faut que ñu am xaalis damay jël benn exemple rek su fekkee tey ferme benn ferme un hectare bu ANIDA di defar ëpp na ñaar eh, eh, fukki ju fukki million yoo xam ne da ko war a dugal tey boo jëlee benn ndaw nga ne ko léegi damaa bëgg nga defar benn ferme ferme boobu mooy ferme ANIDA ANIDA laaj ko loo lu ëpp fukki fukki yi te fukki million xam nga moom amul garantie amul apport personnel dina jafe donc ça veut dire que gën a seetaat bu baax naka lay def pour que ñu dugal xaalis ci biir eh, mbéy ma boo xoolee par exemple nibal bi xam ne eh, gouvernement mu ngi koy def ci béykat yi eh, le plus souvent ay semence la ñu leen jox ay intrant la ñu leen jox ay engrais mais duñ leen xalaat ne ñooñu bu ñuy liggéey dañu soxla lekk dañuy am ay ay besoin ay soxla yoo xam ne dañu ko war a faj bu ñu ko mënul faj nag le plus souvent looloo tax duñu mën a topp seen mbéy te mbéy bi du mën a am productivité maanaam rendement yi du baax parce que nit ki bu bayee bu bu ji rek day dem seetuwaat feneen pour uti lu muy lekk donc loolu nekk na problème financement nekk na loo xam ne war nañu ko mën a bàyyi xel. est-ce que tamit ñoo investir ci yeneen i secteurs. ah oui absolument dañ ko war a def. Hmm. te secteur yi secteurs yi nga xam ne dañu koy neewal doole mooy param njaay dañuy wax ne souvent Sénégal warul nekk Sénégal dañoo bay dañoo bari jaaykat c'est que njaay boobu dafa laaj ñu organiser ko tey boo jëlee benn marché bu bu mel ni Colobane bu ñu ko doon defaree tey mais mun na nekk place boo xam ne adduna yëpp mën na ñëw foofu di jënd di jënd di jaay donc loolu activité la parce que dëkk bo gis njaay mooy loo xam ne mooy gën a mooy gën a jël ay liggéeykat te liggéeykat boo xam ne mun nga gis sa bopp booy booy booy njaay ba pare booy jaay ba pare mun nga gis sa bopp te nekkul liggéey bu xaw métti loolu donc ça veut dire que boo jëlee eh, téléphone téléphone yi maanaam internet ni dañ ko war a développer tam parce que boo développé wul internet am na xarale yu bees yoo xam ne baykat yi war nañu ko mën a am ainsi de suite donc ça veut dire que liggéey bi du benn secteur rek ngay xool su fekkee da ngaa bëgg a saafara problème xëyu ndaw yi da nga war a seetaat da ngay xool fépp secteurs yi yëpp ngay xoolandoo ngay dem eh, démarrer leen doo boo ko deful nag loolu da ngay régler problème bi bala nga pare feneen commencé di di di di di toj. Mhm. wàllum loisivité wu ndaw ñi euh, lan la mën a jur comme ay risques. ah problème kaaraange. ndax euh, su fekkee euh, yaa ngi ci réew mi boo xam ne am ay ndaw amuñu lu ñuy def mais yàq yàq la ñu gën a jagee que defar mooy benn ñaareel bi mooy ñi nga xam ne euh, dañuy bugg a yàq société bi ci ñooñu la ñu jaare parce que ñu gis ne am ñu dara te ñu am ay soxla léeg-léeg ñu jox leen ñu proposer leen xaalis wala leneen pour ñu topp leen donc loolu nekkul loo xam ne dina baax ci réew mi ah rax ci dool yi mooy mbëkk mi maanaam ndaw yi lu tax ñuy dem lu tax ñuy dee ci géej bi lu tax ñuy dee ci désert du Sahara lu tax ñuy dee feneen feneen ak feneen lu tax ñuy dem di eh, indi njëriñ yeneen askan yi bàyyi fii seen askan parce que justement amuñu lu ñuy def donc plus ñuy am dëkk boo xam ne et puis rax ci dolli li may wax toujours ndaw yi ñoo yore solution yi maanaam ñoom ñooy uti pexe yi nga xam ne pexe yu bees ak pexe yoo xam ne war nañu ko mën a def pour que suñu saafa sunu jafe-jafe yi wala sunu soxla yi ñu mën ko far ndaw yi ñoo koy def ndaw yooyu su fekkee ñoom ñooy suñu yaakaar tey ak suñu yaakaar suba su fekkee ñoom amuñu lu ñuy def amuñu ite loolu ça veut dire que suñu soxla yi du mus sa faj parce que ñoom ñooy ko mën a faj te amuñu ñu koy fajee donc loolu mooy loo xam ne mooy suñu responsabilité nañu war a def lépp ngir ndaw yi am tey loolu dañ ko war a def gaaw gaaw gaaw. Tamba Danfakha jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu coalition priorité emploi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf soxna